abonnewul ci sunu chaîne FTTV Sénégal la chaîne des patriotes saa sunu ngeen di am xibaar. dal ak jàmm seen seen bii di FTTV Sénégal kii di Mame Mbaye Niang démb ginnaaw bu ñu ko invité ci émission bi ñu dippee Grand Jury yëkkati woon na foofee kàddu bi nga xam ne ne xaajul bay dëppoog lu am ndax ne. ci coow li nga xam ne dafa jaar ci diggante moom ak kii di président Ousmane Sonko buñ ci demoon procès lu tolloog cent mille francs moom mooy gagné kii di président Ousmane Sonko ndax kii di président Ousmane Sonko li mu def ci kawam diffamation la daa fësal information bu warul te mooy que ne daa am rapport bu ko indexé ci réew mi di Sénégal te rapport boobee amul. ndax rapport boobee am na wala amul dañuy bàyyi kii di Amadou Ba daal di tontu ci laaj boobee ndax kii di Amadou Ba. mom ak Mame Mbaye Niang na problème bu jaron sen diggante té rapport boobee moo sababoon problème bobé am sen diggante dañ and dal di déglu di Amadou Ba lu wax ci rapport Bobé ki di di wax né rapport bobé amul. c'est vrai li ñu c'était sur un dossier product. dossier bi il y a eu des fuites amna a ay fuites la presse l'a exploité et j'ai été accusé à tort. mais mais mais rapport bi kon moo ko indi ci ci ci ci loxo presse bi. xawma fan la ñu jógee jékki-jékki naan Mambay ñaa a détourné vingt-neuf milliards. xawma parce que à l'époque Mambay était sûr que sa loxo ngi ci biir. no non non attends waxtaan naa ci ak Mambay ci pré rapport bi bi nga xam ne moom lañu ñu séddalee ci wax ñëpp. comme euh, parce que rapport nous lay demee euh, inspection yi bu demain demee dañuy jël soit un extrait du rapport wala ñu jox la rapport bi il y a dix personnes ou quinze personnes yoo xam ni amoon nañu euh, affaire xawma nombre bi exactement beaucoup wax mais ay nit ñu bari ñoo xam ne ñu woon ci dossier bi on a vu après que foofu fit fuite bi maintenant ça lui a fait très très très mal kon ñoo ko ki di amadou ba di actuel premier ministre rew mi di senegal mo wax ka ne rapport bi nga xam ne mom la ki di ousmane sonko di wax ka ne da indexer ki di mambay nya lolé lu am la kon ciow li nga xam dafa jaar ci ki di président Ousmane Sonko ak Mame Mbaye lolé du ben diffamation ci ñuy samp laaj naan lutax ki di président Ousmane Sonko ginaaw bam amé rapport bobé bam démé tribunal dañ ko waxé génné ko génneewu ko lu wara xam rek moy rapport yoyé ñu koy fuyuteloo du lenn lu ay diin yu nekk ci biir administration yi ñooñee nga xamne ne ne ginnaaw bu ñu seen liggéey ba nopi bu jébalé rapport yi ki di président Macky Sall ki di président Macky Sall du ko génné du tëj benn ministre ñooñee ñoy jaar ci suuf dal di fuyuteloo rapport yoyé rapport yoyé nak bu fekkoon ne même ki di président Ousmane Sonko am ko bu ko génné woon biir tribunal dañ koy topé pour beneen motif luñ dippé faux et usage de faux ndax loolee ay ay document administratif la bokoy génné dañuy laaj source bi ak ko génnee loolu moom moo tax kii di président Ousmane Sonko même bu yoroon rapport boobee du ko mën a génnee biir tribunal ndax foofee beneen forox ndollu la état bi doon jaarale ngir daal di koy daan ci leneen lu gën a garaaw sax que diffamation abonnez-vous ci sunu chaîne FTTV Sénégal la chaîne des patriotes saa su ne ngeen di ay xibaar